allahu taala yonent bi salallahu alayhi wa sallama nan la ko doon dundee loolu moo tax tey dañuy tënk nuyoo yi bu baax ba ci fin bi ngeen toog bu kenn bougé ndax tey bisimilah euh, Cheikh Mamour Essa moom tey moom kese lañ jegleel émission bi di ko ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gi yaram di ñaan yàlla taxawaayam ci biir réew mi ak si njaboot gi ak ci waajur yi yàlla nañ ko yàlla fayal di jox nuyoo yi yaay booy yi ñoom yaa Kumba Waali ñoom ajaa Sagar ñoom Adja Soxna Aminata Mbaye Aminata Badiane ñoom ami yëpp rek ñu jox leen nuyoo yaayu Seyduna Mohamed yi ñu séddale ko comme niñ koy defee ak yaa Xadija yi mu ngoogu su ko defee rek Assane il ñuy wax toujours rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam nga kii euh, magistrat président euh, Waly fay soxnaam Adja Soxna Guèye dafa génn àdduna fii ci cité euh, cité magistra yi ci watu faar bi noonu la ñu dëkk sërëm nag dañoo dëkk muy Adja Adama Guèye Adama séeréer lañ koy wax ñun ndeysaan ndax suñu kal la ku baax sëram boobu di soxna Guèye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ya gën a kawe euh, président Racine Sy itam ñu koy jaale waa juróom bu jigéen dafa génn àdduna soxna Marème Coulibaly alaaji Racine ba euh, Baba Racine xam nga moom macha allah taala nit ku baax la suñu càmmee ñu bopp la mbokk la ci frère la ci maam awasi ak ñoom Adja Xadijatu Booy waa IPRES yooyu ak ñoom day yum ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaale di leen jaale ñoom tamit ñoom Xadijatu ak ñoom euh, macha allah taala bàyyiwuñu kenn di ko jaale patronat bi yëpp euh, Babara Sine si euh, wax dëgg yàlla kenn bëggul lu la naqari nax yow nit ku baax nga nit ku mën a jàppale say jigéen nit ku mën a jàppale doomu aadama nga nit ku tabe nga foofu danga ci jël ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tab dëgg nga keroog ku ñëw ca dëj ba rek xam na ne def lu baax rek a am solo kon Baabara yaay booy yal na ko yàlla yéege àjjana ya gën a kawe yal na rëcc lu mu doon yàggee fii ñu koy jaal famille yëpp di ko jaay président de la république di ko jaal première dame di ko jaal mbokk yëpp Haalpulaar yëpp ñu leen koy jaal su ko defee Assane euh, dama lay jox nga nuyoo parce que thème bi tey am na solo am solo boo xam ne euh, li ñu ci bëgg a wax yëpp tey ci fukki fan yi nga xam ne moo jiitu il faut que dafa laaj waxtaan bu yaatoo yaatu ndax keroog di passé dama ko junjoon ñëpp tey dañu toog di xaar may nuyu rek sama benn doom Aïda Kane Fall euh, mu nekk di def anniversaire am tey happy birthday to you ma fille chérie moom mi nga xam ne surtout alaaji du Diop Khalil laak doomu Ami Kolli Diop ak euh, alaaji Taf Fall euh, ñu tudde ko soxna Aïda Kane macha allah nen tuuti dundal dundal ba dund mille en ndax yow sa dund am na njëriñ ndax maam Iwon Ndaw bu nangu mukk nag mu gën laa gudd fan na ngeen dund yéen ñaar ba dundi sàppi leen yàlla na ko yàlla defal jàmm defal la ko Oustaz Assane kon ma jox la nga nga nga nga nga wax ne nit ñi namoon nañ la mm. ah namoon nañ la torop macha allah te léegi tey da nga yokk lug bi de dafa mel ni mbaxana rek nga doon sol léegi <laughs> mbaxana bi dafa am yeneen loo ci yokkaat <laughs> affaire paa nga bëgg temps yi de. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayda di santaat yàlla di julli sëlmal si ngën ji mbindeef sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar euh, kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp ñaanal leen yàlla dafa leen gudd fan ak wér ziar téléspectateur yu télévision Futur Média yi nekk ci réew mi ak bitim réew ñaanal yàlla ñaan suñu borom subhanahu wa taala yokk si réew mi jàmm sénégalais yi nekk bitim réew itam yàlla defal leen jàmm xéwal ak sutura sàmmal leen seen ngor ak seen diine ba ñu dellu sawaat fii si seen njaboot si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seyda gërëm bu baax sénégalais yëpp fa tabaarakallahu macha allah ndax keroog aljuma bi nga waxee ne dañ yaram yi dafa xawee nege nege ku ne woote na ñay message message di seet nu yëf yi def waaye sant yàlla bu baax ñaanal leen ñoom itam yàlla defal leen jàmm eh, am mbégte jàkkaarlaa waat ak yow fa tabarakallahu macha allah di la ñaanal yow itam yàlla defal la gudd fan amiin yàlla bàyyi la fi defal la wér nga fekkee at yu baree baree baree bari si barke yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko waa ji di waxe yàlla na la yàlla may téeméeri at yu commencé tey Ah, yàlla daw màgget mu bëri solo. <laughs> téeméeri at yu commencé tey ndeysaan noonu lay wax téeméeri at yu commencé tey yàlla na ko yàlla dogal Seyda di wax ne rek am nañ te ñëwaat si émission bi comme ni ñu ko waxee wallaay du sax bëgg fu paa xam nga dama mës a def conférence mhm. ndeke benn médecin mu ngi toog sama kanam waaw ma naan nit boo demee ba am cinquante ans mhm. sa doole day wàññeeku sa gis day wàññeeku sa nangam mu ne ma oustaz baal ma du cinquante de ma ne ko ñaata la mu ma quarante <laughs> Eh, kon yàlla baax na te xam comme ni ñu koy waaj man de commencé jëndoon naa fi ay lunet mais euh, jigéenu Pape seex Diallo ba moo may saboté ba ma ba ma teg lunettes ya nu xale ba du mu tuddati bisu déedéet kanati euh, ka ka ngeen doon añi këram rek euh, doomu dégeen chimère ba ah, <laughs> waay yàlla na xel de waay tuutaan jàkk tuutaan tuutaan saboté sama lunette yi naan ma lunette euh, xaw ma lan ba ma bàyyi lunette yi léegi nag sama bët yaa ngi nii gisatuma dara tuutaan jàgg la sama <laughs> suuna Seyda kon gis nga addina daal moom mooy waman nu amirhu rek nu nekk su fil xal ngay dem ba si kanam yu bëree bëri day commencé yëpp cofin waaye sant yàlla rek lépp lépp xéewal la di wax na rek comme ni nga ko waxee tey nag waxtaan bi fa tabarakallahu ziar Cheikh Mamour Aïssa wax nga ko ndax euh, fa tabarakallahu la ma waxoon njabootam nga rek nee naa si téye rek qad istamsaka bil urwatil wusqa ah, ku jàpp si moom rek jàppal ne jàpp nga alquran ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikh mamour isa ziar ko ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér sayda dañu nekk si fukki fan yoo xam ne nag dafa am solo trop waaye dug balaa ñuy ñëw si fukki fan yi dañu nekk si weer woo xam ne dafa am solo ñuy waaj a tàggatoo ak moom Mm-hmm. tey suba wala suba insha allah di mm-hmm. dugg si beneen weer boo xamante ni daf ko ëppati solo mm-hmm. ndax boo demee si alquran yàlla dafa wax ne inna iddata shuhuri inda allahi ithna achara shahran fi kitaabillahi yowma xalaqa alsamawati wal ard minha arbaatun xurum yàlla nee na at fukki weer la ak ñaar si ni ko borom bi subhanahu wa taala dogale mu soob ko jamono ba nga xam ne sala sàkk asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar waaye nee na si fukki weer ak ñaar yooyu am na si ñeente yoo xam ne dañu leen xormal bokk na si zulqaada bi ñu nekk nga xam ne tey wala ëllëg ñu tàggook moom incha allah tey wala suba zulxijja bi ñuy dugg incha allah nga xam ne mooy weeru tabaski ba sa toppi du muharram di weeru tamxarit ak weeru rajab ba nga xamante ni incha allah sa kanam lay ñëw kon ñeenti weer la yoo xamante ne nii si tënk dañu ne lépp loo si def lu baax yiw tuyaaba dañ la koy fulal waaye itam lépp loo si def sofaan dañ la koy fulal ndax weer la yoo xam ne am na yu bëri yoo xamante ni borom bi subhanahu wa taala sax daf ko si tere mhm. lu mel ni jamono ba jihaad doon am yoon sallallahu alayhi wasallam daan takk xare mhm. weer yi dañ ko doon wax posal mhm. ndax li si nekk si teraanga li si nekk si yiw li si nekk si mbaax waaye weer wi ñuy dugg nag di zul xijja mhm. allah rawati sayda mhm. nga xam ne nit ñi li si ëpp li ñu si jàpp mooy tabaski rek mhm. waaye laata tabaski am na fukki fan yoo xamante ni moo jiitu ndax fukkeelu fan bi mooy tabaski incha allah léegi nag benn bi ba fukkeel ba dafa am loo xamante ni suñ borom subhanahu wa taala daf ko si wax ndax dinaay faral di wax ne lu yàlla wax ba gën si maanaam ba waat si sayda lool du caaxaan te di si ñëw si kanam boo demee si alquran yàlla nga koy wax wal fajri wala yaalin ashra yàlla bu mu gëñee sa fajar nga xam ne si la bés tàmbali la mu si teg muy fukki fan yi nga xam ne moo njëkk si zulxijja di fukki fan yi ngëneel di fukki fan yi xéewal di fukki fan yoo xam ne dañ si war a takk laxasaay jaamu si jaamu yàlla bu dëggal a dëggal wa taala am na luñ si wax nag si ku war a tabaski su fukki fan yi loo si war a def ak loo si warta def yooyu yëpp incha allah danañ si ñëw mais daal nañu xam ne du fukki fan yi caaxaan du fukki fan yi tappale du fukki fan yoo xamante ni dañ war a ne yàcc na yasar rek déedéet waaye fukki fan la yoo xamante ni dañ si war a tudd yàlla dañ si war a bàkk yàlla dañ si war a kañ yàlla lu ëpp sax la ñuy kañ ña nga xamante ñoom ñoo di suñu ay maam wala si nàngam maanaam li yàlla bëgg a wax foofu si alquran nee na ku si sa maam xewle ñëpp xam ne sa maam xewle na wallaay waaye nag fukki fan yi yàlla nee ne man maa xewle na ngeen def lu ëpp la ngeen di def bu seen maam yi xewlee wallaay wallaay waaw kon loolu na nekk loo xamante ni ñëpp dañ ko war a xam mm-hmm. nañ si jàng alquran mm-hmm. nañ si julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nañ si tudd yàlla nañ si dimbali néew di doole waaye surtout sayda nañ si fexe di jëf jëf joo xamante ni jëf ju baax la comme ni ma ko waxee boo si defee lu baax dañ la koy fulal waaye itam boo si defee sofaan noonu lañ la koy fulal fulale yàlla incha allah musal sayda jërëjëf Oustaz Assane macha allahu li nga wax am na solo euh, ci fukki fan yi nga xam ne mu ngi ñëw ci ashurul xurum yi weer yi nga xam ne euh, li yàlla waxoon rek ñi nga xam ne ñooy aj si ak ña toog ca dëkk yi yëpp mu tere leen ci jox leen ci ay yóbbal ne yóbbal yi gën mooy ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax ci àddu ci ndax euh, Oustaz Hassane xam nga dañu ne euh, ibnu abbas radiallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallama qaala hmm. yo eh, Ibnu Abbas même tey imaamu Médine ak Màkk bi yëpp ci la ñu xutba mu ne ma min ayamin amalu saalihu fiihi hmm. ahabu ila llahi min hazihi l ayam yaani ayam al ashra wallahi qaalu ya rasulallah wala jihad fi sabilillah qaala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarja min zalika bi shay rawahu Bukhari allahu akbar ibnu abbas radiallahu anhu dafa wax si hadis bi nga xam ne mu ngi ko jëlee si yonente bi salallahu alayhi wa sallama li mu wax nag lu am solo la mu ne amul benn bés boo xam ne jëf ci jëf ci lu baax lu ci bés yi la ko yàlla gën a bëgg bés yëpp yàlla bëgg na ko ciy def lu baax waaye fukki fan yii di ñëw def si lu baax moom la yàlla gën a bëgg nga def ko ci yeneen bés dul moom hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko waxee sahaaba yi wax ko ne ko wala jihaadu fi sabilillah xatta nga dem takk xare ak xare ni mu mel ak hmm. tuyaaba yi nga xam ne boo ca bokkee rek araamal nga safara hmm. boo ca deewee moom nekk nga shahid ñu ne ko xatta xare moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne leen wala jihaadu fi sabilillah xattaa xare ci yoonu yàlla fukki fan yii nga jaamu ci yàlla moo ëpp doole loolu yonent bi nag settee ci mu ne illaa sudul rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarji min zalika bi shay mu ne sudul koo xam ne jël na mhm. otom bi duy ko ba mu fees ak xaalis ak yu baax yooyu jël camion yi topp ko mu dem di joxe di joxe di joxe alalam yëpp mu jël ko joxe ko ba mu jeex bi muy dellu si dellu siwul dara su dul kooku rek la xam ne ëpp ko yiw gis nga joxe kon mhm. fi mu toll si yiw gis nga Oustaz Assane màkk ji ñuy wax ni xadiis bi ma wax Buxaari yi moo ko soloo mhm. mhm. ndax euh, euh, wax nga ko léegi wal fajri wala yaalin ashr fukki fan yi ku doon jóg fajar fexeel ba bu la si benn julli fajar rëcc fexeel ba juróomi julli yëpp nga defee ko ci jàkk ja Oustaz Assane fexeel ba nga gën a wàññi sa mbiru puukare àdduna nga delloo si sa xel ci yàlla ndaxte euh, xam nga bonus bu ñëwee mhm. da ngay jënd lu bari pour mu mën a des ak yow mhm. te Oustaz fekke déwén yàlla la gën a wóor dëgg rawatina suñu jamono ji nga xam ne saa yoo toogee si jotaay bala ngaa jóg ñu tàgge la ñaar ba ñett mhm. te tàgge tàgge boobu kenn xamul ci kan lay mujje kenn xamul ci ku ciy bokk ajjuma ji ñu toog di wax ak yow jeneen ajjuma ji di ñëw kenn xamul si ñun ñii kan moo koy fekke ak ku du fekke ak ñi toog sax di seetaan waaye ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ñun ñëpp yàlla nañ ko fekkee te tal ko waaye ku ko fekkee ni ko Oustaz Assane waxee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne asru zilhijja bii nee na ni'matun azimatun min ni'amillahi taala alal abdi nee na xéewal bu rëy la ci xéewalu yàlla yi ci jaam mu ne yaqduruha xaqa qadriha alsaalihuuna almusammiruuna mhm. nee na day bijj liggéey mhm. mooy day fortifier mhm. loo def si lu baax yàlla da koy yokk temps la boo xam ne su dul fukki fan yi munoo ko am moo tax ku nekk ni si góorgóorlu bu njëkk bi Oustaz Assane mooy nañ ci bëri ku ko mën te amoo ngànt nanga nga woor fukki fan yi asiyaamu fa yasannu lil muslimi an yasuuma tisa zilhijja ndax yonent bi da doon wax ne nañuy woor chaque jeudi ak lundi mu ne nañuy woor bésu a bésu tamxarit neuvième jour ak dixième jour mu ne nañu wor sitta min shawal juróom benni fan ci weeru shawal mu ne nag waaye yooyu yëpp amul lu gën a baax ginnaaw weeru koor tisa zilhijja nga woor fukki fan yii bëgg nañu ku ci woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na woor nag wa siyaamu min afdali amali saaliha mm-hmm. xam nga woor moom liggéey bu nekk mbokki jullit yi mbokki mm-hmm. téléspectateurs yi mën nga cee tricher mën nga cee ngisal ba mu des koor moo tax koor dafa nekk loo xam ne day raxas nit moo tax dañu bëgg yenn fan yii juróom-ñeenti fan yi moo xam suba lay commencé mm-hmm. parce que tey la 29 ci zil qaada xamuñu ndax suba weer bi dina feeñ tey bu weer bi feeñee suba la ñuy commencé koor gi bu weer bi feeñulee mu kaamil dimanche la ñuy commencé ala kulli xaalin ku topp réseaux sociaux yi nga xam ne ñu ngi joxe weeru nit ku ñuul macha allahu taala di nga xam dat yi am na télé yoo xam ne sax ñoom dañ koy génne lu mel ni suñu télé Touba TV yu demee noonu macha allah taala ñoom ñu ngi leen di ndokkeel dañ koy génne saa asan bëgg nañ ci at takbir Euh, wa taxliil yahjaru bi har rijal bëgg nañu góor ñi fu ñu nekk ñuy def takbir mooy di wax allahu akbar subhanallah wal wala ilaha illallah wallahu akbar beneen bi nu mu tudd sax bu neex bi nga xam ne màkka moom lay teg allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhaanallahi bukratan wa asila bëgg nañu loolu yéen góor ñi ngeen di ko bëréel ci kaw ñun jigéen ñi moom ñu ne nañ ko yelloo yaa ngi may yóbbu diggante ah jóge jóge tante ba di sànni ci jamra de jóge tante ba rek romb loolu ah, muy riir ndeysaan nga yëg pont Abdullahi a ah, waaye eh, waaw eh, bien ndeysaan boo demee image yooyu sax yu baax yooyu Muna ak Musdalifa nga romb jabalu Arafat jubali ca jamra ya bés boobu nga xam ne bés la bu daw doy waar xam nga tey Oustaz Assane dama xool Kaaba gi 6 heures du matin ba ba ba heure julli gisuma kenn ku tawaaf ku def arbal sama addu damaa jooyo jooyo jooy ba ba ba mënu ma ndé ma ndax ma xool Kaaba gi heure bii bañee ko ba ayaamu zahma lañ ko doon wax duñu wax sa zihaam zahma lañ ko wax wallah euh, baada xamsa wa isrin hmm. daxalati zahma zahma zahma ah ba booy jël hôtel sax hôtel yi dañ koy triplé doublé ko tey ñu nekk foofu màkk li fa nekk matul cinquante personnes ma ne àdduna daal lu yéeme la man lu ma yéem la et gisuma benn nit bu armal de benn jigéen laa gis mu bokk ci tey ci vingt neuf zulqaada sa sa kaaba ga loolu man daay image boobu yéem na ma trop tey yàlla nañu yàlla dolli kon oustaz gis nga bëgg nañ ci mm. euh, li ma wax euh, euh, ñaareel bu may at takbir wa tahlil mm. bëgg nañ ci itam macha allahu taala ku ci baral al iksaaru min amali saaliha umuman nag mm. def lu baax qiraatul quran ci la bokk jàng al quran az zikru ci la bokk addu'a ci la bokk as-sadaqatu ci la bokk birrul walidayni ci la bokk euh, mooy du'a mooy ñaan sadaqa mooy sarax birrul walidayni def lu baax jëmale ko ci say waajur moo xam ñu dund moo xam ñu génn àdduna dinaa wax ñi génn àdduna nga yokku ñaan ga xarit ya ñu amoon nga dem seeti leen saq ak ñoom taraanga la nga doon jox say waajur nga jox ko say tante la nga doon jox sa papa dundatul nga jox ko sa taawu baay wala nga jox ko say bàjjen wala nga jox ko say rakku papa mm-hmm. say nijaay yitam nga jox leen loolu mooy birrul waalidayni baada wafaatihim mooy sa waajur yi mm-hmm. bu ñu génnee àdduna taraanga bi warul dagg mm-hmm. nga di ko defal ay sarax yu baax a baax da nga ko doon jox xaru tabaski bàyyi na fi doom joo xam ne amul njëgu xar nga jox ko xar bàyyi na fi doom joo xam ne wala frère boo xam ne wala mbokk moo xam ne demul màkk nga yóbbu ko màkk mm-hmm. loolu yëpp bokk na si birrul ni ak di ko defal ay fidaawu ak di ko ñaanal di ko foo tollu saa yoo jullee julli juróom yi nga ñaan ko mm-hmm. saa bokk na ci silatul arham mm-hmm. mooy jokk mbokk jokk mbokk moom ku ko mën a def fan yi saaku soble ci la bokk saaku pombiteer baax na jëndal xale yi yëre julli jëndal leen ay dàll mm. dimbali néew ju doole yi su su rawatina aramil yi ñi nga xam ne ay veuve lañu mm. seen jëkkër génn na àdduna mm. amatuñu ku leen yor amatuñu ko jox seen doom yi ak rawatina ay taam yi loolu nit ñi war nañ cee bàyyi xel parce que ki mënoon ba mënatul ki doon gis ba gisatul ki doon dem ba dematul kooku dimbal ko bokk na ci nga def ko ci fukki fan yi oustaz al amru bil maaruf nahyu anil munkari comme lii ñuy def nii digle lu baax tere lu bon wa ayri zalika min turuqil xayri wa subuli taa bëri na bëri na lu nit mën a def ndax oustaz euh, bés daf cee nekk boo xam ne ci laa lay joxe bés boo xam ne nag dafa war bépp jullit mu màggal ko muy taazimu yawmi arafa allazi min ayaamil fatila wa azima lu tax li annahu yawmun maafiratu zunub wa tajawuzi anha wa huwa yawmu iidin li ahli almawqif mhm. wa yustahabu siyaamuhu li gayri alxujaaj wa mhm. huwa yawmu ikmaali diin mhm. wa itmaami nnicmati ala haadihi alumma qaala taala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina sadaqa allahu alazim usaa loolu yow laay bàyyi nga fi macha allah jërëjëf Seyda jërëjëf euh, li ñuy wax naan bu fi yemoon sax mu neex. wallaay ndax fi mu nekk nii ku si nekk xam nga njariñu fukki fan yi nga xamante ni si lañu nekk faram fàcce nga léegi yi nga xamante ni moom lañ si war a def te lépp bàyyi ko si alquran ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nga ba wax ñëw si koor gi <laughs> koor goo xamante ni sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne ku ko def jàppal na yow mel ni ku woor at waaye itam képp ku si jaamu yàlla mooy li nga wax di naafila julli jàppal ne naa fi la nga at li ma wax boo demee si sunu tarmiit yi da nga ko si fekk kon Seyda dañu nekk si fukki fan yoo xamante ni junj nga ko léegi fekkee déwén yàlla rek la wóor wallaahi li ngay wax saa su nekk li gën a jafe mooy fekkee yàlla nañu ko yàlla defal amiin ak tal ak tal kon uh-huh. nit ñi nañuy gën a góor góorlu uh-huh. si jamono yi bu ñëwee suñu borom subhaanahu wa taala dimbali leen ñu fekkee ko waaye itam ñu tal ko uh-huh. ndax jaamu yàlla bu la si yàlla dimbalee ba nga fekkee ko si li si nekk si ay ngëneel kon yow jullit bi ni ngay delloo yàlla njukkal sant ko si li mu la defal mooy liñ si digle si mbaax nga nekk si bëgg borom bi subhaanahu wa taala xam ne yaa ngi si li nga xamante ni moom la bàyyi bàyyiloon sayduna muhammad sallallahu alayhi uh-huh. wa sallam uh-huh. sayda wax nga léegi dimbaliwaate wax nañ ko fi daaw danañ ko répété ndax la répétition est pédagogique uh-huh. ñi nga xam ne dañu waajoon foogoon nañ ne dem màkk dana waaw yàlla dogalu ko ñoom ñëpp nangu nañ seen xaalis nañu jël seen xaalis ñu def beneen xeetu tawaaf waaw mooy def tawaaf wër wër si kër masaakin yi uh-huh. ak fuqaraa yi ak aytaam uh-huh. yi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw uh-huh. ñu dimbali leen si fukki fan yi ñu nekk ndax am na bés bu ñu jëm ju junñu nga ko danañ si ñëw sa kanam te bés boobu léegi lañ ko war a waajal doo bàyyi ba sa bés ba ngay jëw naa nit ki am nangam déedéet fexeel ba bés booba bu jotee moom ni ñëpp def lay def mooy lal basangam toog yor seccom ak ndox mu seddam di sant yàlla wallaahi ndax bés boobu loolu la laaj <laughs> waaye du bésu laajte du bésu tàllal loxo du bésu ñaan mm. kon ñi nga xam ne yàlla dogalul seen dem màkk ren ñu mel ni ñoom Askia. te ñu man ko alaaji Askia. alaaji Askia ñu ngi koy nuyu ak soxnaam soosu. Adja Adja ne ko ko ndax du ma abal benn ceen. Adja Ngoy Fall <laughs> sama tante benn ceen ak benn lam parce que man yi muy takk noonu xam naa rek saa si amuñu njëgam. <laughs> tonton Askia dégg na la. tonton Askia neen soxna nguy na ma na ma na ma abal benn ceen rek ba man ma sol ko ci tabaski bi après delloo ko ak lam <laughs> kon loolu jullit bu nekk. Uh-huh. da nga si war a bàyyi xel. wallaahi parce que tey jii nii. Mm-hmm. li may faral di wax am na loo xam ne bu la ko yàlla dimbalee nga mën ne sa bopp gan mm. du sa njàmbaar de laay milliard du pour nit te du sa njàmbaar déedéet sante ko yàlla na ngay sant yàlla nag mooy ña nga xamante ni yàlla dogal na seen loxo jotul seen gannaaw mm. nga jox leen te li la nga leen di jox moomoo ko walladina hum fi amwaalihim haqqun ma'luum ma'luum lis-saa'ili wal mahruum kay war di laaj ak kañu xañ te mënul laaj am na ñoo xam ne seen ngor seen dignité seen personnalité rek moo leen. may ñooñu moo tax ñoo tudd miskin wala ban moo ciy miskin. ñooñu ñooñu ñooñu ki mooy ki ñàkk te mënul laajte. te ki ñàkk te wala mooy fuqara ñaar yo fakir mooy ki yorul dara. ki yorul dara. na pat za matraba waaye miskin mooy ki nga xam ne mooy suñu compagnie nga xam ne. li ñu yor doyul za matraba waaw buñ la fayee balaa weer buñ la fayee boo demee ci boutique ba jënd ñëw boo ñibbisee sax eh, njëgu gaz yi du ci mbokk. yatiman za maqraba aw miskinan za matraba summa kaana min alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana yàlla nag nee na ñi nga xamante ni dañu yor du ñu joxe mm. wallazina kafaru bi ayatina maanaam ñu jox leen ñu ne du ñu joxe yàlla na ulaika hum ashabul mashama alayhim naaru musada yàlla nañ ci yàlla musal gis nga alquran dañ koy dégg mm. yàlla bu waxee ñi di joxe mm. ñoo nekk si yoonu njub di ñu baax di ñay jëm àjjana ba pare ne ñiy weddi mooy ñiy weddi li leen yàlla jox ngir ñu bañ si joxe kon sayda alal ji saxul fukki fan yi ñu nekk ni nag fukki fan la yoo ku mën daal nag profité suba moom nañu dem ci compte yi wax ko te loo si def waaw yàlla daf la koy dellu aati munfiqan xalafan wa aati mumsikan talafan talafan incha allah musal yal nañ ci yàlla musal moo doon ñaan mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan na bu sekk nag moom ah, ah, hadis boobu rek la bëgg képp kuy joxe macha allah ajaa la bu sekk ziar naa la képp kuy joxe lu mu joxe yàlla nga ko multiplier wal wallahi ballu sedd xolam mhm. waaye képp koo xamante ni dafa am mhm. téye loxoom du joxe mhm. yàlla nga koy teg ay tolof tolof talaf mooy tolof tolof rek waaw yàlla musal mooy ak ñàkk xam nga talaf moo tolof tolof rek moom la moom la olof yàq moo tax waaw Seydaa jullit mhm. day am yërmande wallaahi jullit day dimbaliwaate jullit day taxawu mbokk jullitam rawatina si guddi yi dafa am lu am solo loo wax mhm. gis nga tey jii nii ki jël di dimbali te yàlla rek tax joxe dem jox ko jàmbur si waxin kooku benn tuyaaba lay am mhm. waaye ki nga xamante nii dafa jël joxe te ka mu koy jox mbokkam la wa maa anfaqtum fa lil waalidayni wal aqrabiin si ñi la jege nga gis si koo xam ne rakk la mag la ndijaay la tante la bàjjan la lépp la mhm. jege na la si mbokk deret ak diine te loxoom jotul gën am nga dimbali ko ñaari yiw ngay am xam nga ban ak ban mhm. Mhm. yiwu joxe ak yiwu ku jokk mbokk mu nekk ñaari tuyaaba ñu bindal la tuyaaba yi ku joxe te yàlla rekk tax boole la si bindaale te la tuyaaba wa aatul maala ala hubbihi miskiin zawil qurba zawil qurba wal yataama wal mooy mooy sa jege ñaale Ah. nga jox ko ñu bindal la tuyaabay ku joxe. Mm-hmm. bindal la tuyaabay ku jokk mbokk. jokk mbokk mu nekk mu ngi mel ni nga sànni benn xeer. jam ñaar jam ñaar. Seyda loolu li oustaz Mor Thiam di wax dugal gañe mm-hmm. loolu dugal gañe la kon dañu nekk ci fukki fan yoo xamante ni fukki fanu. Mm-hmm. dugal gañe la. jullit bu nekk na nga fexe mooy li nga wax léegi. al amru bil maaruf wa nahi anil munkar di wax lu baax. di jëf lu baax uh-huh. di yéene nit ñi lu baax lépp loo xamante ni njekk la teraanga la yiw la uh-huh. bu ma ko gisee naa ne Seyda njekk ngi nii teraanga ngi nii yiw a ngi nii wallaay ñu bokk ko ndax lu baax du du uh-huh. jeex déedéet du jeex te du doy li may faral di wax lii fi nekk si mbaax bu doon jeex yonent yaag gaay yi yàlla yaag mag ñu baax kon ñu jeexal ko jeexal nañ ko mais du jeex waaye itam loo xamante ni sofaan la lu ñaaw la euh, euh, euh, tolof tolof lay jur nañ ko bañ di génn si ñuy làmmeñ di tere nit ñi ñuy def sofaan waaw te te Assane mhm. Sénégal léegi yore na benn xar kanam boo xam ne kenn xamu ko xar kanamu wax lu ñaaw xar kanamu soosale ay xol ba ñu jote xar kanamu iñaane nit ki xar kanamu bu ñu gisee ñaar ñu jote au lieu que ñu ñu dox yiw euh, islah bay na zaat waaye déedéet dañuy jël pétrole sotti ko ci ak essence koset almet teg ci muy jëf-jëfi ñuy xelliwaat duñ ci wax lu rafet duñ ci wax lu ñaaw commentaires yi sur réseaux sociaux yi ah nit ñi liñ ciy waxante liñ ciy defante oustaz ak itam li ma gën a tiital gën ma tiital te ñu war ko moytu nag mooy raye bi deret ji ñuy tuur su su rawatina bu ñu demee ba affaire yi dugg ci biir université yi affaire yu dugg ci biir école yi affaire yi dugg rey bi léegi nekkatul feebar nekkatul accident mais paaka butti teg butti dagg ay ven ah jël xottu bu teel jam suñu doom yëpp di dee te dee gi daal ni muy ni muy ni muy ni muy amee nii li ñu waxoon si axiru zaman yëpp dëgg la mais dee moom war nañ koo wutal solution ndaxte kat man defe naa lii li Serif Sall doon wax malaayika stagiaire yàlla bu di ñoom ñoo fi nekk waaye lii moom defe naa ne nit ñi seen bopp nag ñoo boole ci rey bi école semaine bu jot ñu ne kala école nangam rey nañu sa nangam rey nañu ah université rey nañu waaw loolu tamit sa euh, asar man tiital na ma de. li may def nii nga baal ma de. waaw bu xaarij anil mawdu waaw sujet. waaw mais jàngat bu ndaw la rek. waaw si luñ si jëf tuuti si analyse bu ndaw. Mhm. gis boo fi bàyyee yàlla leneen lu bokk ak yàlla ñeme la def loola loo bugg woon a def. te dañu mel ni dañu wan yàlla ji gannaaw il faut ñu wax ko mu leer Seyda bu nit toogee fii naan damay def nangam maag yonente yàlla Moussa ñoo yem dayoo alayhi kenn waxul kenn ñépp na pat bu nit toogee fii di défier loo xamante ni suñu boroom la subhanahu wa taala allahu ndax dara gënul rëy si bàkkaar uh-huh. wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadiban wa qaala uxiya ilayya wa lam yuxa ilayhi oh. yàlla ne woon na ana kan moo gën a mën a tooñ kan a gën moo mën a sos kan moo gën a mën a def bàkkaar ku taxaw ne man man na man naa lii ab yonent man oh. te yàlla ne na ay kàcc neen la ñu ne pat Seyda bu ñu demee ba njabarkat bi lañ gën a ñe lañ lañ lañ lañ gën a jox bopp imaamu jàkk bi ka yàlla waaw njabarkat bi lañ gën a jox euh, bopp ka boroom xam-xamu lislaam bu sell bi wallaahi njabarkat bi lañ gën a jox bopp ka ki nga xamante ni léppam alquran ak sunna la mm. wan nañ yàlla gannaaw wan nañ alquran gannaaw wan nañ sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw sallama gannaaw wallaahi dafa am suñu wala yuflihu saahiru xaysu ata xaysu ata munul nekk yaa ngi dégg njaber gi moom tas na dëkk bi. waaw léegi nag bu fekkente ne yooyu yëpp dañu ko def. Mm-hmm. te njabar foo ko gisee ay shayatin lay àndal. Mm-hmm. ay jinne yoo xamante ni gëmuñ yàlla gëmuñ yonent sallallahu alayhi wasallam lay àndal. Mm-hmm. ñuy ñëw di def loo nit ñi la nga xamante ni dañuy tàggoo ak seen sago. parce que nit ñi ñoo dem ba won yàlla ji naaw tey jii boo duggoon léegi. nga xool émission bi ñuy def. waaw wala bu ni mel si beneen anam. si beneen média. nombre de vues ya muy am. du bëri ak ya nga xamante ne. tey jii nii daal doo ko paase lay am waaw. bokkul nga xool nag benn boo xam ne musiba lañ cay wax. te koo si wax. waaw bu lay waatal si yàlla lay waat. Mhm. wala yonent salaay salaam. wala alquran wala sëriñ diw. Mhm. waa léegi xam nga moom laay wax benn jour ma ne tey boo xoolee Sénégal ni mu tëddee. Mhm. turuq yëpp dama lay wax rek sénégalais yi nañ ma jéggal dañuy waxtaan. <coughs> waaw waaw dañu bëgg rek ñu baax rek wala ñiñ ko sañ a waaw waaw addiinu an si turuq yëpp. waaw boo si dem tey am na télé. am na télé boppam wax nga fi Touba TV. Mhm. am na Asfia. Mhm. am na jàmmalaay rajo am na leneen am na leneen am na leneen turux yëpp am na rajo am nañu télé. te ku nekk sa yëfi bopp rek ngay teg maa ngi ñëw mais tey jii mhm. boo demee. da ngay dem ku mel ni Kër Assane. mu toog. ne moom si tariqa sàngam la bokk. teleem am na tariqa boobu de. muy wax li yàlla wax wala yonent sallallahu alayhi wasallam wala la mag ma jàngale. du ko jàpp de leneen lay jàpp. loo xamante ni ay yëfi àddina dong la. te boo waxee mu ne Serigne Diw mi moom la gëm. déedéet moom lay gën moom lay waat ma dagguma la. Mhm. mais dégle nga gis nga toog ay nitu diine nii. Mhm. moo xam ci conférence la. wala si réunion la wala dara. Mhm. mu yore téléphone am. match de football lay seetaan. waaw léegi nag xam nga la mooy problème walla wala muy seetaan ay image yoo xam ne. kon dangay ngay tiit la nga say dégg xam nga mooy lan mooy que ne ñun ñoo feebar. société bi société bi moo feebar te inna la laa yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru yàlla nee ne waaw du ma fekk benn malaat naan naan kaay dem si médecin bi boo bëgg boo feebaree yëg sa yaram yu nege nege yaay jóg demal sa bopp sa médecin ba mu diagnostiqué la bindal la ordonnance nga dem pharmacie jënd say garab naan sabab lu ta ñaan yàlla mu may la wér allahu maanaam yàlla du soppi nga def tawakkul ala la waaw kay waaye yàlla nee man du ma soppil kenn doxalinu société am tant que société am jóguñu pour soppi seen doxalin. seen bopp Sénégal de war na ñoo jóg. donc pour loolu parenthèse la woon bay na xaw say ni pour wax li nga doon wax. donc nit ñi nañu delluwaat si yàlla. delloo yàlla li moom moytu njabar moytu bokkaale moytu ay tappale yoo xamante ni dara du si dëgg. ak feñaak ñàkk liggéey. masuma gis man. waaw nit ñu tëral ko. di ko jébbal boromam ñu ne nañu woo njabarkat bi masuma ko gis wala nañu woo maaman bi masuma ko gis nañu woo imam wala nañu woo musicien bi nañu woo imam nañu woo oustaz wala musicien bi waaw falaa jamoon mu ngo ñoom ñëpp xam nga tey ku fi nekk fi ak loo munti nekk ak foo munti toll tey soo génnee àdduna bés boobu du teg say kaset te tey suñu suñu suñu suñu génne woon tey mu ngi mel ni tey euh, suñu kilifa gi bu defee bu defee kaset euh, bu bees vue ya muy am yow boo defoon téeméeri waxtaan doo am vie yu toll noonu. waaw xam nga mooy maa ngi lay wax rek si feebaru. société bi loolu ci feebaru société bi te ñun. suñu diine moom nañ am jullit bu nekk nag war ngay góorgóorlu si sa diine sa kem kàttan fattaqullaha mastata'tum. waaw bés bu na nga jàngale ko. waaw kon loolu jullit bu nekk seen daal daf si war a bàyyi xel sax man xam nga lu ma faral di jàngale. Mhm. fattaqullaha mastata'tum man dama ne xale moo ko moom. Mhm. xale bi dal baa xale bi am fukki at jàpp fukki at juróom te toggagul jëf. waaye boo xesee ba nekk sinnul muraahaqa fattaqullaa haqqa tuqaatihi war nga koo dug mhm. mooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla mhm. boo demee nag ba nekk troisième âge troisième âge mooy lan mooy yow jeexal nga mhm. sa ñaar ñett na la la woon jege na la say noppi neexatul sa bët gisatul say bëñ euh, màbb na tere yaa ngi nii lex ya yooru na tànk ya wañaaroo na soo doxee ñaari baat yaa ngi à feebar yëpp dugg nañu. Mhm. kooku li ko war mooy mu ragal yàlla xam ne mag ku dee mu dee. Mhm. ku deewul mu dee. te muy dëgg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet ñu si ëpp du ñu passé soixante-dix ans. kon moo tax Oustaz Assane toujours damay wax ne. Mhm. bés yu mel nii nga xam ne lu mel ni Arafat. ñu war cee profito ndax maa ngi tiim si euh, tey moom tey affaire yu jàngalekat laa def tey tey damaa bind sama tey daal samay koy ana ñoom fàtkat ak ñooñu <laughs> waa jamiyatu murabbiyaat tey moom tey moom tey moom ustaaz laa dëggantaan dana isa kaana yawmul arafa fa hmm. inna allaha tabaraka wa taala yubaahi bihimul malaikatu fa yaqul unzuru ila ibadi atawni su'than gubran waahiina min kulli fajjin amid أشهدكم أني قد عفرت لهم الله أكبر فتقول الملائكة إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا قال يقول الله عز وجل قد عفرت لهم رواه Ibn Hibban. allahu akbar saa asan lii neex na di firi ko. Seyda. waaw euh, ndeysaan mooy bés bi nga xam ne. jullit bu ne ñaan nga yàlla mu fekk la makkatal mukarrama saa arafa. wallaahi wallaahi jullit bu nekk. Mhm. ñaan nga bés boobu doo ko wuute. jullit bu nekk ñaan nga lay teraanga ak yiw ak barke sa bés boobu suñ borom subhanahu wa taala wàcce ka sa kaw xadis bi nga jàng yoonu sallallahu alayhi day wax ne bésu arafa te bésu arafa nag sayda benn bés rek lay doon si at mi waaw du doon ñaari bés du doon ñetti bés ma na xam lu ma jaaxal mhm. <laughs> Sénégal léegi na la ñuy def dañuy bokk ak Màkka bés bi wala dañuy def seen arafa boobu waaw xam nga mooy li ma wax rek bésu arafa moom benn rek la doon si àdduna te léegi Sénégal nu ñuy def. te sallallahu alayhi wa la mu jàngale woon maa ngi ñëw. sallallahu alayhi la mu jàngale woon bàyyi ko fi mooy taxaw taxawaayu arafa. xëy rendi gàttam muy bésu tabaski. lii da defoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa keneen ku def leneen nag jàppal na yow wuute nga ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne bésu arafaat yàlla day puukarewu si kanamu malaaka yi si ñun ñii di ay jaamam ña nekk arafa naan leen malaaka yi xool leen sama jaam yii ñi nga xam ne keroog ba ma leen waxee ne inni jaailun fi l ardi xalifa qaalu atusidu atajalu man yusidu fiha wa yasfiku dima naan malaak naan leen ba ma leen waxee ne dama leen di bind yéena ma doon wax naan ñii ay agresseur la ñuy doon dañuy rayante dañuy suujante dañuy nangam tey ñu ngi ñoom ñëpp armal nekk arafat ña armalul gis nga leen ñu ngi ne la Sénégal woor mm-hmm. ngir yiwu bésu arafat bañ leen rëcc ngir sama jëmm ji ñu mhm. ngi nii tey xool leen waa Arafat ni ñu weexe mhm. xool leen diw mu ngi ne la woor lekkul naanul si suba ba tey ndax sama jëmm xoola Adja Maam Awa Si mu nga ne la ah waa Arrahma léegi ngi ne la woor waa sopp na bi waa Tural Travel ñoom Khady Sarr xoolal waa sopp na bi waaw euh, soxna ma jigéen jaase macha allah ah, macha allah ñoom ñoom ñoom ñëpp a ngi ne la ah, xoolal ma loolu xoolal xoolal ñoom ñëpp a ngi ne la tey firqa bi ci ñoom ñëpp a ngi ñoom ñëpp a woor ak Adja Yacine Ndiaye ñoom ñëpp nga di leen wone ak ñoom Bili Ba macha allah ngir Ana Ndiaye nag moom xam naa ne day fee nekk làqatu ci ginnaaw di bañ Adja Merem si madame Tahirou Sarr ah, ñoom ñëpp première dame bu ndaw Seyda eh? nga gis ne yàlla kon yàlla lu muy puuk réew du lu ndaw de yàlla lu muy puuk réew te xam nga oustaz dafa ne ataw ni suusan allahu akbar mu ne xubran allahu akbar mu ne daaxiina min kulli fajjin amiq ñu ngi nii ñëw xoolal ni ñu poussière poussière ni ñu froissé dand xoola Arafat nga gis koo eh, xam ne yére baa ngi tilim mu sol daal bi tax yenn saa yi quarante ak trente-sept lay boole saa yi kii nga gis ne euh, serviette am dafa réer for beneen rek sango wallahi bii karo bi bii am ñay ñaan ñi jooy mu seer kanam gaa bët yaa nga laas waaye mu ngi taxaw rek tàllal ay loxoom yàlla yàlla te yàlla Seyda bëgg min kulli fajjin amiq foo ko yaakaar fu mu gën a sore yàlla ne fa la ñu jóg boobu naar yi bëgg koo yemale ci ñoom ke déedéet fajjin amiq day wëy day wëy day wéy de incha allah nga xam ne. comme ak ñoom docteur Lo nga xam ne ñoom ñooy làkkanteeg ñoom arab comme yàlla moo ko waxoon yatuuka rijaalan wa ala ah? kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiq ñoom ñu ne dañ koy liyashhadu manaafi'a lahum déedéet fajjin amiq boobu day continuer sayda nga xam ne keroog yàlla day wàcc ba sa asamaanu juru asamaanu adduna adduna tiim ñu tiim ñu di wone naan xoolal day wane de xoolal ay bu ma wanee yàlla wane nañu ñun ñëpp incha allah ñëpp yàlla wane waay macha allah taala waay waay yàlla nañu dellu màkk ba pare ma waay malaaka yi naa ko waa ñoom lu ñu bëgg mun ne leen xanaa ma jéggal leen malaaka kay ne ko ah comme yow eh, ñoom nga doon ñoom ngay tiitaroo léegi looy def ak ñoom yàlla na leen jéggal naa leen ñoom ñëpp lu ñu mas a def allahu akbar te ku woor tamit da am si yiw woowu da am si yiw boobu yàlla da lay jéggal say bàkkaar yaag xale bañ soor a juddu tey yéen boobu yonent bi bi mu ko waxee sallallahu alayhi wa bi ko ko malaaka yi waxee bi ko jibril alayhi salaam waxee qissa bi dafa ree ñu ne ba ba ba ba ay dëgëjam feeñ mais Seydina Omar ne ko waaw sang bi xanaa yiw bi ñun kese rek ñoo koy moom sang bi moom Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu tontu Seydina Umar ne ko ñun képp ku fi teew ba keroog yowmal qiyaamati yàlla jégal na képp ku mu sa taxaw Arafat xamal ne jot nga sa laissez-passer àjjana ba keroog yowmal qiyaamati li xale yi naan li neex xam nga lu neex waaw ne boo taxawee Arafat ba jóge fa bés boobu mhm. sooy gam-gam lee ndax yàlla jégal na ma wala jégalu ma sax yàlla mere na la mere la ndax da lay jégal kon <coughs> yàlla nee nañ ceroog ba mu bindee mbindee fii ba pare sa aras mu ngi sa bind inna rahmati sabaqat ghadabi bi sama yërmande moo ëpp fuuf doole samam sànj ak samam mer si waxin kon Seyda euh, bés baa ngi noonu léegi nag ki nga xam ne dafa fas yéenee tabaski buñ ne weer bi feeñ na xam nga lan moo lan lan la warul def te sénégalais yi ñu bëri dañ siy juum day si ñoo xam ne bu tabaski desee ñaar ñetti fan ñu dem si coiffeur yi ran ñi commencé dagg seen wee ñi di pédicure ñi di manicure ñuulal lu ne te dañ ne la bu weer bi xësee ba feeñ boo fas yéene ren di gàtt fas yéene tabaski góor ak jigéen ñoo ci yam bul dagg sa ay wee bul wat sa karaw tànk ren diwloo sa gàtt ba pare te tey jii nii sunna la loolu mais ñu bari xamuñu ko na la boo xamante ni ku nekk da ko war a dundal ñun dëkk balaa ñuy mën a dem coiffeur ba rek ñu ne suba la ñuy tabaski wala gannaaw suba ñëw raa yóbbu ya salon ya fees dell jigéen ñi ñii di afroi boo afroiwee ñu ñu xëcc dagg sa karaw ñii ñii ñi defal leen coupe ñii yokk seeni i greffage ñii tegaat seen i greffage ñii teg seeni i mees te loolu yëpp normalement danga mel ni ku armal su dee yow fa yéene ngaa rey sax gàtt mhm. ndax xam ngeen ni euh, sunna mu akkada la mhm. euh, euh, ndax ginnaaw aju màkk bi dañu ne fukki fan yi bés boobu amul maa la yonent bi wax tey tey tey moom tey professeur dëgg laa maa amila ibnu aadama mhm. yowman nahri amalan ahaba ila llahi azza wa jalla mhm. min hiraqati dammin allahu akbar mu ne fa wa innahu la yaati yowma alqiyamati bi quruniha mhm. ñu ne ah mu ne wa azlafiha ñu ne ah mu ne wa ashaariha wa inna damma la yaqa'u min allahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a ala al ardi fa tiibu biha nafsa allahu akhrajahu termisi wa ibnu maaja sallallahu alayhi wa sallam oustaz yàlla yàlla ku kéemaane la hmm. wax naa euh, vendredi passé ma ne ndigal la ba ko yàlla joxe maam ibrahima ak soxnaam sa haajara ak doomam ja ismaila hmm. yaa abati ifaal maa tuumar ak a jafe léegi sa doom yi nga wax leen rek ñu ne la yaa abati wala yaa ummi ifaal yi maa tuumiriin <laughs> eh, dañ naan la mooy yéen yow foo nekk kañ nga dof foo toj foo toj maman <laughs> maman bëri nga wax maman waxal ndànk ah waaye xoolal ji doom ak ji eh, ni ko eh, suñu papa Ibou Sakho suñu baay mbay doon de doon waaye ak Alaaji Njaase mbay ca cees mm-hmm. ñu ne cey ji baay xoolal cey jii doom mm-hmm. yaa bunayya inni ara fi manaami inni azbahuka mhm. lu mu ci teg fanzur yaa abati ifal yaa abati ifal maa tu'mar satajiduni inchaa allah min as-saabiriin allahu akbar mu ne yàlla nee na bés boobu yow ma yow ma naxari bésu bésu bésu tab tabaski mhm. amul benn liggéey benn lu ci gën a neex yàlla mooy tuur deret mhm. nee na deret jooju de boo ñëwee yow mal qiyaamati nee na béjjën ya nee na weewu xar ya nee na karawu xar ya nee na deret jooju ngay ngay ngay ngay ngay lewatal bala moo dagg ci suuf yàlla taawu na ko bu ñu rendee xar mi rek deret jàng ca àllaaxira ca barzak ca àjjana di la fa xaar moo tax ñu bëgg ñuy wut xar yoo xam ne yan façon xar bëgguñu xar bu xar bu pat bëgguñu xar bu lagaj bëgguñu xar bu bu ray mu dee rayul mu dee moo tax saa il foog nga ñëwal ñu itam ci dëgg la wax nañ ñu tabaski mais yan xar la ñuy rey mm-hmm. ndax itam xar rek la ñu mën a rey mm-hmm. ana gëléem mm-hmm. ana nag yi xoolal daa waa falaax ma ciy jàdd nuyu ñoom docteur Alpha Aw euh, professeur Alpha Aw ak ñoom Seyda Fat Kan ndax daaw ñoom dañu ne comme xar yi matewul dañoo jënd ay nag lewetal ko ku nekk ñu defal la mbuusu 10 kilos vingt kilos baax na de baax na de ku amul xar itam boo amee 10 kilo euh, ndawal lu baax te ndawalu ndawal loolu sax moo gën si ñun maire yi borom tension yi kon nag waa falaax seen seen musi baax yooyu euh, am na solo oustaz ban façon xar lañu war a rey ku ko am ndax ku ko am nag lañu wax ndax nag wax dëgg yàlla illa ma ataaha waaw du force ndax ku amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rayaaleel na la xar mm-hmm. benn woyaan bi nag ak benn dem ci kër nit ñi di leen ñaan xar di ñaanaatu di sonn wala ngay lépp wala nga jël yëfi jàmbur jaru ko fi xatta mm. farata sax boo mënee la boo mënul yàlla indil na la plan B mm. rawatina nag xaru tabaski mm. mais oustazal foofu laa lay joxe nga wax ñu en tant que yow imam ban façon xar nga war a teg nag ci kanamu ñoom Diouf saar ministre yi nag <laughs> ma ba jiite nag ba pare nag ak ak ban heure lañ ko war a rey macha allah ndax am naa durwa ñu gaawantu julli imam di ba ma bàyyi ko fa bàyyi fa oustaz Mor Thiam ñoom bàyyi fa ñoom imam Baan daal di dem sama yoon ak ñoom imam Ousmane Sow ndax ñeme naa loolu. vieux mooy ma 30 secondes. dafa jeexal ma tënk loolu waa jeex na heure bi jeex na. Ah. yoon salaa salaam sayda nee na. laa tasbaxu illa musidnatan illa an yaasura alaykum. 15h29 eh, moo jot. fa tasbaxu jazatan min ad-da'ni. yoon salaa salaam nee na bu leen rendi lu dul boo xamante ni atal na foq. waaw dugub na dafa metti si yéen amu leen ko. Mhm. bu ngeen ko amul nag bu ngeen amoo boo xamante ni bu 6 mois la. Mhm. dem leen wuti. waaw bu dul bu góor ba xar mu góor mi lañ la laaj boo ko amul boo ko wutul nga nga wuti tàpp tàpp boo ko amul nga door a wuti bëy xar mu jigéen waaw boo ko wutul nga door a wuti sikket waaw boo ko amul nga wuti tàpp bëy ko amul nga wuti bëy wu jigéen boo ko amul nga daal songi li nga xamante ni moom moo di nag yëkk boo ko amul nga wuti nag bu ñu tàpp boo ko amul nga wuti nag bu jigéen boo ko amul nga wuti gëléem bu mag góor boo ko amul nga wuti gëléem bu tàpp boo ko amatul amul nga wuti ma wax ah, dama ko yaakaar rek bu jigéen noonu lañ ko jàngalee waaw mais yi nga xamante ni yan sallallahu alayhi moom la wax ne arbaun la tujzi u fil adahi mhm. ñeent yi la ñenn mhm. ñeent yi bu mhm. ko jàppal ne am nga yàpp ga bu dagan waaye amuloo waaye amoo tabaski ñu ne ko man ak ban mu ne al awra mooy bu bu bu pat bu bu pat bu pat waaw wal marida ak boo xamante ni dafa feebar biir bi di daw dara bu mënul dara rey mu dee reyul mu dee daal waaw mu ngi noonu wal arjaau al baynu zal'uha mooy bi nga xamante ne nii gumba na gumba na ba nga xam ne manul mënul dara wala ak bu làggi bu làggee ba nga xam ne soo nee jàkk rek di nga xam ne handicapé la handicapé la waaw xar moo xamante ni dafa handicapé mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boobu itam mhm. boo ko jàpp am nga yàpp gaa mhm. waaye itam am nga am amuloo tabaski wal kasiratu lati la nee na ak bi nga xamante ni tànk bi dafa damm am ak bu bu geen gi dagg nag boo xama jën gi sans dépense li sa dagg la ca dagg la ca dagg béjjën bu damm itam béjjën yi sans dépense bu fekk lan moo damm béjjën ba ak la sa damm nu mu toll mhm. loolu lépp dafa nekk loo xamante ni lu ñuy lu ñuy lu ñuy millimétré la tey jii boo jëlee boo xamante ni genn wàll béjjën ba dem na mhm. yow jàppal ne am nga xar am nga yàpp mais ah, waaw waaye yiwu tabaski wa mën jën ba itam bu dee këtti genn la ëpp sa genn ba maanaam dagg na dem na mhm. yow jàppal ne itam am nga li nga kon nag ñiy jënd xar war nañoo bàyyi xel loolu nañ koy xool bul xool rëyaay bi rek waaw bul xool rëyaay bi mais yooyu yëpp ay critères la yoo xamante da nga ko war a xool si li nga xamante ni moom moo di xar mi ngir boo ko rendee mën a am li nga xamante ni moom moo di yàpp waaye itam am tuyaaba maanaam am tuyaaba mais tamit boo koy rendi heure bi nga koy rendi da ngay xaar boo koy rendi waaw ñu jullee ba imam ba la jiite rendi ba pare yow ci nga soog a am nga door pour rendi sa xar boo ko defulee am nga yàpp waaye amuloo li nga xamante moom moo di yoolu tabaski waaye bul rendi sa kër astafurlaa bul yàkkamte ne bàyyi ma ren di soor a julli ji kenn du ko def wala doo dem ñu rendi ba pare mhm. asafulaa imam julli ba pare nga daw dem sa kër imam ba la jiite rendeegul nga ñëw jàpp tele bi imam ba nekk sa fa ren ji jiite mhm. rendi xaram nga ne imam ba la rend imam ba la jiite mooy rendi ba pare yow nga door a rendi li nga xamante ne moom moo di sa sa sa sa tabaski am na solo am na solo kon dafa am solo ndax nit ñi dafa am solo da nga koy wax Seyda mhm. dañuy sëlmal rek ñu gaaw waaw yàkkamti côtelette yeeg foie bi alaaji Assane Gueye ji commencé uh-huh. lakk yeeg noonu noonu waaw am na itam yu yoo xam ne xam naa vendredi prochain bi may ñu vendredi hmm. prochain dinañ ci dugg incha uh, xar kenn du ci génn yenn wareef fii kenn du ci fay buuse bi nga xam ne moo la ko layal te dégg naa ci kii yu bëri di wax ne boo jëlee res ba bind ci lii boo jëlee tànk ba def ci lii naam loolu doo def na ba pare di ci dugalaat ay bidaa loolu lu affaire u ceddo yooyu nañ ko bàyyi xel ay tànku njëkkeek ay fàllare yaay yooyu yëpp macha allah taala waxtaan la boo xam ne mun nga ci jël nag maye sulusu xar mi mooy ceer bi nga maye ko bañ a lekk yëpp wala nga denc lépp sa frigo xam nga yàpp tabaski nag nag neexu la maye moom <laughs> ndax moom cafkaam benn la mais bu la tollalee noonu nga nga rey ñaari xar su ko defee tey man fi may tàggoo rek mooy hmm. nee naa la sama doom Aïda Kane Fall ca Tiwaawoon dafay def anniversaire am waaye sama cuub bu rafet bii nga xam ne tey Macky Sall laa tey moom APR laa <laughs> tey moom euh, madame ba dina kontaan tey APR pire laa Euh, su ko defee rek sama doom mi taan aprisop xaw ma waaw aprofon aproson xaw ma xaaral ma xoolaat tur bi sax <laughs> ndax mooy mooy mooy suñu goro waaw aprosi aprosi moom nga xam ne daf may may calendrier yu riis madame ba euh, taawu yi Adja yeta ba boobu nga xam ne yeta wi laan ca Sokone allah sama doom nag mintaan mintaan Diop maag papaam ñoo bokk benn baay macha allah mu nekk Murtani te daf naan ma joxuma la joxuma la peinture nag takk la may jox mintaan maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sa yaay Adja Ndioro ñas di nuyu famille Jaltaabe Kalidou yëpp famille Alaaji Dut Diop Xalil ma kenn ñi nekk Europe ñi nekk euh, Asie ñi nekk Amérique rawatina ñi nekk fii Mauritanie euh, Tafra Ousseyni Adja mintaan kontaan naa trop si yow yàlla na la yàlla fay bàjjen yow xam nga sa bàjjen laa wax dëgg yàlla sa lii duma ko di guleet yàlla mi nga xam ne mooy teral yàlla na la yàlla teral teral sa waajur bu jigéen ak sa waajur ak ñi nga bokkal ndey ak ñoom ki neeg ñoom mareem ak ñëpp rek nuyu naa leen di nuyu Binta Mama macha allah taala di nuyu famille bi yëpp waaye nag nga may ma itam ñu nuyu macha allah taala ajaratu Bili Ba ak Amadou Ba ndax amadu Ba dafay def lu baax te loolu kilifa yëpp war nañ cee def day def heure bi bu jotee mu recen mu recensé imam yeeg mustaaribaat yi. jàngalekatu arab yu jigéen yi te xam nga loolu ñooñu boole wuñ leen moom daf leen di boole Adja Jëmb Fall suba incha allahu taala ci lay def tari alquran bi fële ci parcelle unité 19 waxoon naa ko keroog yal nañ ci egg ak jàmm euh, macha allah Adja Fat Sow itam yëmbal di rakk ci mareem euh, mareem mareem mareem euh, anam fooy ba sax moom i tamit cey moom <laughs> jàngalekatu alquran yi dañ leen a war a jàppale ca yëmbal daara ibnu abi arqam Euh, macha allah taala moom it euh, day def tari alquranam jëmbu faal daara amina macha allah taala marimloo waaw ñooñu ñëpp rek ndeysaan euh, vie ñii moom il faut ñu leen di leen seen yëf yi di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala askiya nag sëñ askiya Touré Cheikh askiya ak soxnaam ñu leen di nuyu di leen ziar di hmm. nuyu itam Cheikh Abdourahmane di nuyu suñu yaay soxna Assou Diagne ca Thiès hmm. hmm. balaabe macha allah taala di nuyu fam bi yëpp sama yaay boomeel ba ayda ba bàyyiwuma kenn ñoom Fatou Diop abi yàlla na leen yàlla fay tabaski bi yàlla nañu yàlla may ñun ñëpp ay xar yu tunkal macha allah taala di nuyu waa HLM Grand Yoff macha allah taala Assane ma jaxat Vieux dama lay gërëm bu baax gërëm waa waaw Vieux Diouf ndeysaan waa teg sa loxo macha allah waaw di ñaan si barke Zul Hijja bi ñuy dugg ak weeru tabaski beeg Zul Qada bi ñuy génn waaw falaa jëm kër gi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla musal ñu si cat aar borom kër gi ak ñi fi liggéey ñëpp. ak ay rakkam alxaaj Youssou Ndour. xaaj Buuba xaaj Njaga Ndour euh, suñu patron boobu xaaj euh, Birane Ndour ñoom ñëpp yàlla sàmm leen ak ñi fi tuur seen ñaq yëpp yal na leen yàlla barkeel barkeel seen njaboot sàmm leen aar leen làq leen fu yàq yeggul si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak suñu maam yu baax yooyu alxaaj Ilman Ndour ak maam Ndey Soxna Mbuub yàlla guddal seen fan moo jaar si kanam fi fi maquilleuse <laughs> macha allah <laughs> madame ba wax nga ko léegi alxaaj Tamsir Soxna <laughs> Seyda foog ñu nuyu ko xaaj Abdourahmane Ndaw xaaj Cheikh Abdourahmane Ndaw xaaj Abdourahmane Dieye directeur des douanes moom itam ñu ngi koy nuyu ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér maire Assou Mbengue sa Dias ak papa Ibrahima Faye ak waa Dias yëpp Adja Oumou Idrissa Gueye Adja Cheikh Yacine Dougouré Doukouré ak Cheikh Bamba mhm. macha allah maa ngi koy nuyu di nuyu waa Dias yëpp ma ne ko nee ko sa dig naa ko baax na vie jeexal nañ ñu ngi tëj Bamba moom it yaayam baax na mënul ñàkk leen douze ans mais duñu tardé émission yi jeex na mu ngi noonu ak euh, Adja Marème fay première dame kontaan na si yow sa marron beige macha allah kontaan na si yow ak allah kon mu ngi noonu Diouf Sarr itam jot na sa yóbbante dina ñëw incha allah mama rakki fàttaw ni ko